tamit gis naa homme politique boo xamante ne mus na def candidature ci élection yu weesu munuma la wax ne nag ci euh, ci gouvernement Macky la wala gouvernement Ablaye wadd wala ab du Diouf mais ancien nit koo xamante ne da doon def candidature ci élection présidentielle te actuellement nekkatu ko bàyyi na ko yàlla mosu koo jox réew mi gis naa tamit koo